10 août 1895 ci la sëriñ bi jóge woon këram ga ca Mbàkke Bari ca Jolof guddi gi ko jiitu mu waaj waajtaayu tukki yabal rakkam ju baax ja loxol nday jooram ba Cheikh Ibra Faati ci borom Ndar tàggoog njabootam ga te soxna Faati ja almuridatu saadixatu magoon ca njaboot ga mu fanaane waxtaan ak ñoom di leen dénk di leen waar di leen fàttali nattuy gaañu baax ñi ak seeni cër ak seeni may fanaane mankre gaal ya ak der ya ak këyit ga ak daaja ak deri jullikaay ya ba ñoom ñëpp ñu xam ne kii ci wàccaayu tukki la bi mu julli jee fajar ba génn ci jàkka ji la maam Cerno Ibrahima Faty egsi ba ko bëggee leeral aw yoonam mu ne ko Cerno bu ma yàggal ba ngay wax ak xor ba ba ngay wax ak ceddo ya ba ngay wax ak ceddo ya xorandoom yee ci say tànk di dox sax maa ngi leen di gis waxuma laa li nga doon wax ak ñoom moom kay li des mooy duggaat ci kër gi sax waruma ndax daa araam ci man nañ daal di dem rek daal leen daal di ko ne dénk naa la gone yii nag nañ leen jàngal te yar leen gone yooyu yii nag gone yu tedd yu baax yii nga xam ne tey Cheikh Mouhamadul Moussa ak Cheikh Mouhamadul Fadil kii moo tàmbali jumaa ji kii moo ko eggale mooy gone yooyu muy wax mu ñaanal leen dénk leen yàlla boole leen ak seen bàyyi Cerno daal di laaj fas yu amnullahi teg tànkum day jooram ba ca dëgal ba yéeg di rëppatal faso di dem ànd ak fajar gi muy leer muy dem di taw di wicc wiccal bu mujj muy taw taw bu dëgër ba mu àgg jeewal yendu fa te dafa waroon a continuer ànd ak noon yi quartier gu mag a mag gu yor nga naa yu doy bari lool ñu ne ko waroo fee yendu dañuy dem mu ne leen amaguma ndigalul sama borom foofee la fanaan te sañuñu ko bañ ci kiimtaan yu mu leen won ba ñu ragal ko mu fanaan fa ba bët set ci la xëy nag dem Louga moo tax bu naan billaahi faaraxtu nasaara jeewali loolu rek moo lay xamal ne gañe na leen ndax mbooloo mu toll noonu yor seeni ngànnaay te moom yoru lu dul daa ak xalima waaye ñi muñ koo jege dañ koo daan na di ko seetaan ba waxtu demam jot mu ne leen bismillah te aw fasam nag moo man seeni fas nim leen mën a ñoom mujj ñu ne ko may nu ñu mën a ànd ak yow ndax sa fas wi li muy daw sunuy fas munu koo daw ndax da leen jiitu lu bari ci la demee Louga ca ba jël saxaar dem Ndar am fa diir jóge fa dem Ndakaaru dem ca tukki lu ne ñu def ko ko lu ne ñu won ko ko mën luñ ko tara mosul ne bu ma def lii mosul ne bu ma yóbbu fii mosul ne jële leen ma fii mësta binni mësta wonk mësta tawat mësta dara dara mosu koo dal mu ne ci environnement boo xam ne miinu ko jaww ju sedd guy di taw juróom-ñeenti weer nekk ci wetu tefas tefas rek ay yoo fa godd yoo yoo xam ne kenn xamul nu ñu toll bokkut ak yi nekk senegal yu rëy rëy lañ ak fel yoo xam ne fel yu bare bare bari ak i xorandoom xeeti yu metti yuy lore yu bari yoo xam ne am na ci yoo xam ne sax kuñ màtt da cay bàyyi lu mel ne ab bant comme ni yamb di def yooyu yëpp la dëkkaloon fam ne waaye mosu koo tee jaamu yàlla di wéetal yàlla di bàkk yàlla di sellal di julli ci yonent bi di ko liggéeyal di boole wér ak julleeg jàng tudd yàlla màggal yàlla wéetal yàlla te gisuñ ci moom lenn luñ koy yebe wala loo xam ne mën nañ ko koo nettalil lu dul jom ak ngor ñeme wéetaay ñeme xiif ñeme mar ñeme tumuranke ba am bis nag rek mu xëy taalif wala xat karam naa waxin wu yaramtaloo ca biir a ka ناجيتك اليوم سافقا إليك فكن لي مغنيا a لي اليوم بيبانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وتكفيه يوم بعث الخلق ميسانا ba xasida ga àggee rek da ko yónnente bi ne suñu boroom nangul na la liggéey bépp àgg na lim la santoon def nga ko lim la diggoon dana ko def kon nag mën ngaa waaj léegi ñu wax la ne la da ngay dellu Sénégal suñ bi tàmbali defali bagaasam defal gaal yi ak téere yi bi di ko ree ndax umpule ne moom dañoo defe ne kii moom xamul li muy def te fekk mu am na ku ko dëy ku leen dëy ñu teg ci biir télégramme bi ñëw ne koo kii bu ko fi gaal gi bàyyi dañ ko jàppalee bagage am dugalal ko ci dañoo bëgg mu dal dellu Sénégal ñu doole ñëw roñ la ko bagage yi ñoom ñi ko doon sonal ko bagage yi dugg mu dal dugg ci gaal gi egg si Sénégal le 2 muy tertu bu xumb ñu jàpp ne sëñ bi génn àddina ñëw nañ ñu yàkkamti woon a gis sëñ bi ñëw nañ ñi ko bëggoon a bëgg ba wuñ ko ñëw nañ moo tax ñi dañuy sar xolle ñii di yoo ñii di xaaxataay ñi daanu kiris kenn xamut foo ne kenn xamut looy def maam Cheikh Anta njëkk dugg jox ko loxo mu wooloo ko maam Cheikh Ibrahima mooy mu ñëw nuyoo ñoom ñaar képp ko jox loxo ñu ànd di wàcc gaal yi sëñ bi ne bala maa wàcc li ma liggéeyaloon yonent bi day wàcc ñu di ko wàcc di ko wàcc gaal yi bari lool bu mujj tubaab yi yàkkamti sëñ bi wàcc ñu mujj di leen dimbali ci wàcc bi am ne tëll ñëpp gisandoo ko yuuxu ya saf xoll ya xaaju ya ñii di xallaañu ñi daanu dégg bëgg xamuñ fu ne mu nuyoo leen nuyoo bu tedd ba kàddoom ga asalaamaaleykum dama tukki woon waaye ñibbisi naa lu ngeen gisati sama gannaaw nag sëriñ bi la loxo bu tuuti bii moo ko liggéey kon nag kooku kenn mënu koo fay xanaa bor boo xam ne mënoo koo fay loo am dawal ci rek dawal gi nag weesuwul sant tey góorgóorlu ci bëggam te di ko liggéeyal ba faw yàlla na ko yàlla fayal te def nu dëgg dëgg ay taalibeem kullu aamin wa antum bi xayr